jërëjëf jërëjëf sunu mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi am mbégte dellusiwaat dellusiwaat euh, ci penc mi tey jii nag penc mi gis ngeen plateau bi nga xamante ni fi lañ ko defee mu war a dox nag diggante kii di Double Less numéro 2 ak Boy Niang Abdoul Aziz Ndiaye production organisé woon boobu combat mu amoon ci stade Demba Diop naka altine juróom-ñeenti fan ci weeru avril mbokk yi ñu am mbégte lool. mbégte gi jëm rek ci wàllu làmb ak keroog bis ba na nga xamante ni noona la bindoo mu nekk làmb ju mag xale yi ko bëre doon xale yoo xamante ni nii xale yu am pas-pas lañu ci li ñuy def xale yu am fulla ci li ñuy def kooku mooy Double Less numéro 2 di doom ci Daouda Fall di mbër bokk ci école de lutte bu Balla Gaye numéro 2 bal wala Balla Gaye numéro 1 di père Balla ni ko xale yi di waxe mu doon bëre keneen koo xamante ni mën nañ jàpp ne ñoom ñaar ñoo bokk baay ñoo bokk baay ndaxte ñaari doomi mbër la te gis nañu ni mbër yi bindoo jamono ji ci li nga xamante ni moom la ñuy liggéey bokk ndey bokk baay ci ancien lutteurs yi te ñoom seen ñaari waajur yit it yaakaar naa ne bokk nañu ci ancien lutteurs yi muy Boy Niang di Double numéro 2 Abdou Aziz Ndiaye organisé woon ko mbokk ñu bëgg cee waxtaan tuuti ñuy xamal suñu mbokk téléspectateurs yi bu soobee yàlla lii balaa jeex wala bu jeexee incha allah dinañ leen indi li tey jii li amoon ci conférence de presse bi ci benn hôtel waroon a dox ci diggante Balla gay numéro 2 ak Yékini dinañ ci dellusiwaat bu baax mbokk yi ñu ngi am mbégte kon dañuy dellu si li ñuy jëkk def rek muy nuyu Abdoul Aziz Abdoul Aziz ñu ngi leen nuyu bu baax. Euh, maa ngi lay fay. di nuyu euh, téléspectateur u 2STV yëpp di nuyu ñaari mbër yi nga xam ne tey dajale nañ leen fii muy Boy Niang 2 ak Lac 2 di nuyu amateuru làmb yëpp comme ni ma koy faral di waxee di nuyu suma ñaari waajur di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal seen fan te yàlla leen yàlla dëgëral di nuyu itam staff Aziz production bépp ñi nga xam ne ñoom lay àndal di liggéey muy suma ay xarit suma ay mag ak suma ay rakk ak suma ay am di jàmm di nuyu aussi waa 2STV yi nga xam ne suma ay partenaires lañ te maa ngi ànd ak ñoom di liggéey liggéey bu rafet li ko dalee ci kilifa gi muy élage Hadj Ndiaye madame Ndiaye ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp yow bekkaay ak xale yi ngay àndal yëpp maa ngi leen di nuyu di leen remercier di leen féliciter encore une fois de plus. di nuyu aussi itam ñi nga xam ne nii ñoo may jàppale muy suma sponsor yi nga xam ne ñoom laay àndal di liggéey. maa ngi leen di nuyu euh, di leen féliciter encore une fois ci réussite bi nga xam ne tey suñu ko amee c'est grâce à eux maa ngi leen di nuyu euh, di leen remercier bu baax a baax di nuyu Sénégalais yëpp béykat yi. Abdoul Aziz jërëjëf. dara gënul neex dajale ay junni ci ay doomi aadama ci benn jataay ci benn ngoon ñu ñëw ci jataay bi ñu def ko ci anam yu ànd ak nobles ba loola jeex ñépp ñibbi ñibbi ci jàmm. maanaam ñu sumb ko ci jàmm ñibbi si jàmm loolu dara gënu koo neex Abdoul Aziz bi nga taxawalee làmb ji làmb ji demee noonu ak ni làmbi dimanche ji mel keroog xanaa xol bi sedd na de. waaw del wax làmbi altine ji ndax. xam naa ne altine altine la woon waaw dëgg la Bécaye xam nga ñun rek souvent ni ma koy faral di waxee dañu am benn staff boo xam ni ñun ñëpp ñoo ciy bokk di xalaat ku ci ne di ci joxe sa xalaat. ñuy xool combat ñi monté itam di déglu amateurs yi di déglu sénégalais yi li nga xam ni gën na leen a intéressé moo tax keroog plateau bi gis nga ko ni mu riche ah ma ci encouragé waat rek ñaari mbër yi nga xam ni ku ci ne wane na ci fair play bi combat bi taxawee lépp loo xam ni digge woon naa ko ak ñoom ci wàllu promotion combat bi def nañ ko niñ ko bëggee woon bisu combat bi tam wane nañ fulla wane jom wane ngor ki waroon a daan daan na muy Boy Niang ñu koy félicité ki waroon na ñàkk tam yàlla dogal ko muy Double Less numéro de ñu ngi koy encouragé Bécaye damay remercier amateur yi rek ci confiance bi nga xam ne am nañ ko ci ñun. ba waaw mais doguma la mais plateau bi nga leen indil keroog. Mhm. parce que lamb bu ci nekk rek. boo xoolee ci Boy Ndiaye Tyson boo xoolee ci Kaw Cissé combat bi nga xamante ni moom la bëree boo xoolee Baye Ndiaye combat bi mu bëre ba ci combat bi gën a ndaw mu doonoon Youssou Ndour ak Boy Lo boobu naka nga fexe ba xalaat ni loolu moo war a doon bisu le 9 waaw xam nga Bécaye combat bi dañ ko jàppoon mu waroon nekk vingt cinq mars tombeek élection waroon ci am ñu def ci benn renvoi maa ngi ci jégalu mbër yi nag di ci jégalu li ci waroon a xew lépp mooy élection bi moo ko waraloon ma ni nag bi ma waxtaanee ak suma ay staff suma ñi nga xam ne ñoom lay bokkal ñëpp di liggéey man leen comme ñun dañoo am habitude di tàmmal amateurs yi ay plateau yu riche yoo xam ne vraiment saa bu ñu ko tëggee ñëpp dañuy ñëw nañu xool bu ñu xool liñ ciy def nañu xool vraiment li nga xam ne mooy satisfaire amateurs yi nga xam ne amateurs yëpp dañuy bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp su Aziz dee tëgg ñoom ñëpp ñu ñëw kon li leen tàmmal mooy plateau yu riche moo tax keroog ñu def sept combats la ñu def te mënoon na jëm ci cinq combats wala six combats wala quatre combats mhm. mais dama ni vraiment nit ñi bu ñuy déplacé wu di ñëw saa boo leen wooyee ñu ñëw da leen offrir loo xam ne nii vraiment dina am respect tuuti te ñi koy seetaan si tam dinañ am contentement ba lépp loo ci mën a jëlee boo demee sa kër mu doon lu barkeel loolu moo faral souvent ñun mhm. lu ñuy def rek dañuy xool nu mu gënee. ndax làmb métti na méttiwaay boo xam ne ñun bu ñu demee ba ci biir dootuñu xool liñ ciy def. Mhm. dañuy xool bànneex bi ci nit ñu koy seetaan am souvent mooy waral ñun ñuy def plateau yu riche yooyu béykat yi. jërëjëf Abdou Aziz ñu bàyyi Double Less numéro 2 mu nuyu téléspectateurs yi nga nuyu fan fans club yi nuyu ñi nga xamante ne nii et ñoo di école de lutte bu Balla Gaye. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñuy dolli di sant yàlla rek di sant suñuy waajur. Hmm, di profité waal di nuyu suñu adversaire di nuyu Aziz Ndiaye adoyo suñu père Bekaay di ñaan suñu adversaire tamit victoire bi yàlla noonu nekk lu gën si moom quoi di ñaan yàlla tamit ñun yàlla maa ñu beneen combat ñu am si ndam. Mhm. di génn génnoon géejawaay bi metti woon na bi ngay génn. <laughs> bi ngay génn ci kër gi di génn di ñëw ci stade bi nag lan nga lan nga doon sentir. waxuma la jour combat bi rek mais avant combat bi rek day mel ni chaque jour day mel ni combat bi jour boobu la. Mhm. si géejawaay parce que géejawaay ñëpp xam nañ ñu mel. ak ñu mel ci làmb. si làmb xam nga di leen baalu àq bu baax. Mhm. di baalu àq waa géejawaay yëpp parce que bu ma sañoon tamit su ma ñëwee damay daan. yàlla mooy dogal nag dañ daan ut lu mat ay at ngi nii wala ñooy ñoo di am ndam. te gënuñu ñoo daan daan quoi. xam nga jox ma confiance am yéene bi ñaanal ma def lu nekk mais tamit yàlla mooy maye. xam nga nañu ñaan yàlla tamit yeneen yeneen bis yi yàlla mayaat ñu ndam. yeneen bis yi mais ma gis ni ma gis ni Guédiawaye Pikine weekend bi safoon naa. <laughs> waaw métti woon na trop métti woon na <laughs> Boy Niang nuyu naa la. waaw père maa lay nuyu. ñu bàyyi la nga nuyu gars yi. waaw maa lay nuyu di sant yàlla bu baax julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur bu baax. di nuyu Aziz di nuyu di nuyu suma adversaire comme ni nga ko waxee di nuyu population bi yëpp di moo monde entier bi yëpp. Mhm. di nuyu waa Pikine bu baax di nuyu Sénégal gépp añuy seetaan. Mhm. bi ngay génn yan bi diisoon na. waaw ngay dem ci stade bi. waaw yan bi diisoon na kay parce que dafa nekkoon ko baabu am solo ci plan de bi. Mhm. waaw waaw ñu war ko bëri ak koo xamante ni mbër bu am expérience la jiituñ ci làmb. waaw kon bu ñuy dem yan bi dina diis Pikine gépp nag toppal suñu ginnaaw. parce que keroog ba ñuy dem. waaw ñun mbooloo bu ñu gis sax daf ñoo jaaxal waaw Pikine gi yëpp dañoo génn topp suñu ginnaaw ak ñeneen ñoo xam ne jóge nañ feneen. Mhm. waaw moo tax yan bi diis seen euh, euh, Eumeu Sène dolliwul woon yan bi est-ce que le fait que Eumeu Sène woon ba pare daan nga war a ñëw yow tamit war a bëri. waaw Eumeu Sène waaw loolu source source de motivation la rek parce que moom suñu grand la mu nekk biir Pikine nekk ku baax tamit. Mhm. waaw yàlla def mu bëre daan laa bay ñun ñu war a bëri waaw kon ñun dañu jàppale rek war nañoo mën a daan. Mhm. ñaan suñu borom daan. préparation combat bi ak moralu combat bi avant le combat. waaw ah, préparation bi métti woon na parce que combat bi comme ni ko Aziz waxee nii rek après dañ ko renvoyé woon à cause des élections après bu ñu demee ñu jàppaat beneen journée. renvoi bi métti woon na. waaw métti na parce que préparation bi yàggoon na mais xam rek ñu ànd parce que promoteur bi moom it borom baax la gor la ñu seq ñu ànd ci moom ci loolu mu jàppaat beneen jour. ñu préparé ko sérieusement ñëw suñu borom may ñu ndam ñuy sant yàlla bu baax a mhm. préparation bi métti woon na. waaw préparation métti woon na trop moom vraiment parce que combat xam nga cinq mois nga koy préparé hmm, bañ ne combat bi des na une semaine deux semaines affaire yooyu ñu renvoyé nañ ko mais bu fekkoon tamit dañ koy doon jàppee comme ñun mun na kenn mënoon na blessé suñu par force dañ koy nangu.